wala banul maytati ak soow medd ah, bu ñuy medd la xamal ne kon soow may bàyyi ko ci moom gannaaw bu meddee itam sobe la sobe la soow ma sobe la wa muharramil akli ak lu araamal ak lekk kal xinsiiri ñi ki mbaam xuux wala ataani ak wajanu mbaam bu ñu nee nangam naa lekk xamal ne am soowam sobe la bu ñu nangam araam naa lekk ni ki bax la wala mbaam xuux wala wajanu mbaam muy mbaam yi xam kër gi wala fas ko day jox ko yépp soow may bàyyi ko ci ñoom kon sobe lay doon wa bawlul jàllaalati ak sawum jàllaala war a jiixuha ak aw neefareem wa hiya moom jàllaala kullu xayawaanin mooy wépp nundat yesta amil woo dana jëfandikoo an najaasata sobe wépp nundat wépp jëfandikoo sobe rek am sawam sobe lay doon ay neefareem sobe lay doon doon dagan naa lekk ni ganaar ganaar buñ ko bàyyee mu wët moom dafa baaxoo lekk sobe kon kooku ndegam day wët rek am sawam sobe la doon ay xaytaam sobe la doon waxam nañ ci gannaaw nag ne bu fekkee loolu dagan naa lekk te moom du lekk sobe nag ni ki xarak bay li ci ëpp moom duñ lekk sobe kon seenum saw ak seen neefare laab na wal bawul ak saw wal hadiratu ak xayta minal aadami yi bàyyi ko ci doomi aadama xayra fadalaatil ambiyaayi ndare des yit yonante yi a doomi aadama saw mi bàyyi ko ci moom ak xayta yi bàyyi ko ci moom sobe la ba mu des nag bu bàyyi ko ci yonante ab yonante moom saw muy bàyyi ko ci moom ak xayta ya daañu ko dindi rek ngir wan nit ñi war ngeen a dindi waaye ñoom seen bopp lay bàyyi ko ci ñoom du sobe te am nañ ci firnde ji ko tax ñu wane ko ñu tax ñu wax loolu wa min muharramil akli ak ci luñ araamal lekk wa makruhi yi ak lu ñu siba lekk kas sabo yi niki ndeg ment wa di bi ak maa loo xam ne dañ ko dafa araama lekk waxoon nga léegi soow ma nga toll nag ci wax saw ma ak xayta ya lépp lu araama lekk ni ki fas bi nga wax léegi bu dee fiq malik ak mbaam yi ci kër gi yooyu araama lekk seen saw sobe la seen xayta sobe la ba lu siba lekk sax lu ñu lekk sax mel ne siiru muusum siiru wala mboolem rab yi fàdd ba ci till ñoo siba lekk dañoo waxoon ne bu dee seen soow moom dañ ko sib doong yem ci soow ma lañ sib doong yem ci waaye saw maa xaytee moom day àgg ci sobewu kenn du ko yemaleeg soow ma sobe lañ koy jàppe dëgg-dëgg kenn du ko mën a julwaale kenn du dana araama lekk itam ndax sobe lañ ko jàppe wal xayfu ak dëtti kese wa sadidu ak dëtti wànjar dëtti kese ak ju jaxasoo ak deret ñoo ci yemoo sobe la wa damu ak deret almasfo jadi juñ fis minal aadama yi tukkee ci doomi aadama aw xëyri yi mbaa lu doomi aadama deret juñu fis mooy ji nga xam ne ba ñuy jàmm rek mu daal tàmbalee sotti ku nekk ni ko la boo rendee mu daal tàmbalee sotti ku bàyyi ko nekk te dëggoo ab tengo dëggoo jëmm yàpp waaye moom day jékki-jékki tàmbalee sotti ko jooju moom sobe la moo xam ci doomi adama la moo xam ci leneen la deret ji laab mooy ji nga xam ne ngaa dagg ab tengoo mu nàcc wala nga dagg jëm morso bi yàpp bi mu nàcc yooyu moom laab na wal xayu ak wàcc al mutaxayyiru muy aji soppiku xan xaalati taami walis meloo ñam moo xam ne soppiku na donte agul ci xayta it waaye soppiku na ci na melo ñam ma melo nañ koy lekk melatul noonu ba tey sobe lañ koy jàppee wala muskilu ak aj màndal kal xamari mu ki sàngara waaw lépp loo xam ne màndal ba noppi daal di daal di maare boobaa loolu sobe la te mu liquide boole ci waaye fekkee day mel ni xeet yooyu nga xam ne nii danañ yàq xelum nit xeet yooyu jëmm jëmmam laab na mën na ko def ci poosam julliwaale ko waaye nag bu dee sàngara nga xam ne moom boo ko naanee màndal la nga sigiri ba noppi itam daal di mm, mm, tàggal la sa sago mu nekk liquide ba tey sobe lay doon wal man yu ak man yu man yu sobe la waxoo moom mi ne rajuli bu tukkee ci góor maawun am ndox la ab bu yàgg muy aji weex taqinul muy aji fat maanaam muy aji tal bi mu talla tatin ci lu ñu tomb bi mu talla tatin ci lu ñu tomb ñetti tomb maanaam taqyin lay wax naa boo koy boo koy bind danga koy def tombañ ñetti tomb ngay def ta gi ay lu mu ci namm ghalidun aji tal aji tal mooy aji far yata dafaqu dana jiñu fii xuruji ci génnam raihatuhu xetam ka raihati talin mi ngi mel ne xetu tóor tóoru tàndarma bil xay ni ci binde ko xayin moom talxi awil xaayi wala xaalonk al muhmala tey di neenal mooy yeñ bañ a tomb waaw nee na man yu bu fekkee day moom góor ndox mu weex lay doon te te bu fekkee nelaw bu dee génn ko yëg muy jiñu day xeeñ xeetu tuur tuur ma talxu boobu nag bu ko dee bindoon nga ko bindee mën nga ko bindee xaalonk xayin nag lañ ci gën a miin ndox bu doonee talxu xaalonk xëy na ñu firee ko banaana wa qaribun ci aji jege la min raihatil xajjini ci xetuk mooñ ba tey nee na xetam moom man yu xaw naa nu doon deg xetu mooñ wa ida yabi sa ndem wow na kaanam mu nekk karaa i xatil baydi di mel ne xetuk nen maanaam bu woowee day xeeñ li nen di xeeñ loolu mooy moom góor wa minal mar'ati bu bàyyi ko ci jigéen nag maawun am ndox la as faru mi aji gel gel mooy roos xaw a xong raqiixum te aji sew bi ne sew mooy day loyox bañ a far maanaam moom jigéen moom day puur ba noppi layox du far wal wadd wi ak wadd yu moom it sobe la man yu kon sobe la bàyyi ko ci góor bàyyi jigéen nga jàll ci wadd yu wadd yu moom itam sobe la bi daal daalin ci daal muhmalatin ko di guñ neenal neenal mooy ñàkk tomb daal guñ ñàkk tomb la jublu wa fil yaay nekk na ci yaaga wacc xaani ñaari anam at tashdiidu sàdd ga wa tax taxfiif ak woyofal ga maanaam gannaaw daal gi yaa moo ci topp bu la neexee nag yaa ja nga sàdd ko kon nga jàng wal wa diyu wala wa diyu boo sàddaa yaa gi wala nga woyofal yaaga bañ koo sàdd mi kon dangay jàng wal wadd yu rek al wadd yu noonu lay doon moom nag waxoo moom maawun am ndox la ab yadu muy aji weex taqinum te aji fat te aji tal maanaam mooy far rek yaxruju moom dana génn xaaliban ci la gën a bari aqibal bawli ci gannaaw saw ma nee na wadd yu sobe la ndox mu weex lay doon te far dana di génn ci bu kooko sawee ba noppi te fekk mu am ab diir mu wanoo mbaa mu doon ko amee sedd mbaa mu nekkan ku tawat bay doori wér nga xam deretam manqué na dana waral bu sawee ba saw may jeex mu daal di génn su yàlla dogalee mu génn fa mu doon sawee fa saw may jeexee rek mu daal koy raxas mu jeex dana noppale waaye bu demee bay jàpp ba noppi mu daal di door a génn dana tooñ jàpp ma ndegam jegewul lool na muy génne te itam sobe la bu dee léeg-léeg rek day génnal est raxas bu dee bis bu ne mu génn nag moom ñu jégal la ko ndax ci gàttal moom sépp sobe soo xam ne bis bu ne mu génn moo xam ci yaram lay dal wala ci ay sër dal moom jégale nañ ko ndax bis bu ne nga fóot ab coono la wal wal madiyu ak madiyu dafa wax madiyu waaye des na wax itam al madiyu rek noonu bañ a sàdd yaay ji bi katari daal yi ci katari daal ga al mujamati ga di buñ tomb des na wax madd sukkoon maanaam maas daal gi maas ko nekk waaye moom dafa wax madiyu ci daal nga maas ko yet ci suuf maawoon am ndox la abyad muy aji weex raqiqun muy aji sew bu nee sew rek mooy loyox bañ a far yaxruju moom dana génn xindal laddati fa bànneex ba bil inxaasi ci jógu sàkkara ay limu ci namm xiyaami zakkari jógu zakkara xindal mulaaxabati fa fooxante ak jigéen awi taddgaari wala xalaat jigéen bi fat yi taay ci fataa taaga fataa bu dee ci kuy jàng na woon mooy maskeet ci kaw taddkaar jee lay wax naa boo koy bind ngay maas taatomb gi ca kaw maas ko yet ay limu ci nam at tafakkuri xalaat nee na mas yu ndox mu weex lay doon waaye moom du far la koy génne nag mooy bu fekkee ne moom góor gi doon na xalaat jigéen mbaa muy foog moom ba ab sowukaayam jóg xëy na ndox mu weex moomu te lay wax génn moo tudd mas yu daañu leeral ne dana toj njàpp sobe la boole ji te ñu santaane raxas sowukaay ba fa mu saxee ba mu yem xëy na loolu dina ñëw ci waaye fi mu toll fi mooy xamal xamale ne la sobe la dee sa war a tàggoog moom dee su ko lekk dee su ko julliwaale itam ci kaw coobare bu dee ngànt tax nag ñu xam ne ngànt laa tax wara maa du najis yi doomu sobe wa duxaanu ko ak saxaram najisum sobe la man daa wax ne loo xam ne neeñ sobe la boo ko lakkee saxar sa ciy bàyyi ko sobe la dóom ba sobe la waaye jooju wax dëgërut boo toppoon jooju wax nee faray mbaam sobe la léegi boo ko lakkee kon saxar sa cay bàyyi ko sobe la doom ba sobe la maanaam doo ci mën a lakk morso bi yàpp ne boo jël morso bi yàpp tey dóor ko ci dóomu fu ñu lakkee neefare mbaam su boobaa kenn du ko mën a lekk ndax kon da ne dañ ko lakk ci sobe waaye wax ji gën rek mooy sobe buñ ko xasee lakk bu defu dóom wala mu def këriñ léegi laab na ay jamono léegi waaw oh, saxaar sa itam noonu ba tey saxaar say day jàpp ne laab na nekk bu fekkoon da nga doon lakk dara ci lu am saxaar da nga doon lakk ci loo xam ne bu dee tàkk day am saxaar fekk loo lay sobe nag waaw boo séndalee la nga doon lakk ba saxaar sa dugg ko itam du nga mën a lekk loola ndax saxaar sa jàpp nañ ni laab na faslun li ab dog la tajibu dana war izalatu najasati dindi sobe xan tawbil musalli walis malaanum aji julli wa badanihi ak yaramam wa makaanihi ak bérébam naam bokk na ci sardi julli bala ngaa julli nga wóorlu ne sobe nekkul ci yow sobe nekkul ci say yére nekkul ci saw yaram nekkul ci béréb ba ngay jullee bu ñëwee say yére moom mouchoir boo yor wala montar wala weer lépp lay àndal di julli rek dugal na ci yére yi mu am sobe yaram bi noonu béréb bi ne lay bëgg a wax waxoo moom béréb ba maa mooy la nga xam ne tuma soxoo dana laalanteeg moom ah daa waxoo ay cëram béréb bi nga jullee moom mooy fi nga xam ne boo dee jul da nga ko laal rek waaye néew ñu tey tappi bi nga toog di jàng ni yaatoo ñu ne boo ci doon tey lépp day set déedéet fi ngay laal yow boo dee julli rek bu setee baax na man ngay jullee ci kaw tappi bi wet gee am xaytee ganaar yoo xam ne sobe la mbaa deret mbaa sàngara waaye bu fekkee ne bërëb bi ngay laal boo dee julli yow dara toq ci ci loolu rek baax na ida kaana dem nekk na daakiran di aji fàttaliku laxaa ñeel sobe si xaadiran tey aji àttan xalaa isaalatihaa ci ak dindeem waaw nee na bañ a julliwaale sobe bala ñu ko sart nga bañ koo fàtte te mën ko boole ci su fekkee danga koo fàtte daañu ko wax boo ko fàttee ba julliwaale sobe julli ga baax na daañu sopp rek boo mënee tàggoo moom nga tàggoo te baa mu julli ga ndeg waxtu jeexut su fekkee tëlee tax yaa nga sobe waaye mën laa tàggoog moom moo tax nga julliwaale ko it ba tey noonu julli ko baax na gannaaw ba rek bu waxtu yaatoo te nga mën a tàggoog moom rek ñu sopp nga ba am ko des koy dindee nag bil maa yi ci ndox al mutlaq yi ma di muñ boyal ndox mutlaq mooy mi nga wees woon nga xam ne melawa soppikuwut cafka ga soppikuwut xet ga soppikuwut ci lu mu mën a moytu mooy ndox mi nga mën a jàppee rek mën koo sangoo farata mën ko yóbbu woon nag neen ndox mu mel noonu ci ngay dindee sobe maanaam bu la soobee taqoon sa yaram mbaa sa yére mbaa béréb bi boo koy dindi bu la neexee koo dindee saabu mbaa leneen luy tax mu gaaw deñ waaye su boobaa da ngay awalewaat ci kaw ndox mu mel ne mi ngay jàppee su fekkee awalewaatoo ci kaw ndox mu mel ne mi ngay jàppee dañuy jàpp ne jëmm ji dañ ne waaye atte baa nga ko ba xam ne faaw dana aajowoo nga awale ci kaw ndox moomu kon bul fàtte ne si yére bu amee sobe soo mënta julliwaale bu la neexee njëkk koo fóot ak saabu mbaa leneen luy gaaw waaye su boobaa na nga awalewaat ci kaw nag ndoxum kese mu mel ne mi ngay jàppee bokkul fi ba tey ñu jàpp ne atte baa nga fa mel ne yaa ngi julliwaale sobe mooy falaw azalaha doonte dindee woon na ko bi xëy bi ci ndox mu dul mutlaq wa salaate mu julli lam si sixa kon du wér asalaatu julli ga waaw su ko dindee woon ndox moo xam ne mutlaq ndox moo xam ne am na soppi ko ci genn wet mooy mooy matalalu sart ya waaw su boobaa bu jullee tam julli ga du baax ndax day mel ne ku julliwaale sobe fa ida saqata ndeem rot na xalal musalli ci aji julli ji waxuma te fekk na moom fi salaat nekk na ci julli ga najaasatun sobe batarat kon yàqu salaatuhu julleem nga nee na bu fekkee bi ngay tàmbali julli ji moom taqoo benn sobe waaye da ngay julli ba ci ba ci biir rek sobe taq la niki sobe bàyyi ko ci kaw daanu ci sa kaw kon dañuy seet bu fekkee sobe sa tooy na te itam dalaa taq kon dañuy seet bu fekkee waxtu yaatu na ba nga xam ne mën ngaa tàggoog moom am ci rakk rek julli boobu yàqu la su fekkee day sobe soo soo xam dafa laa dal daal baras ci ku daanu nag soxla ci yow mbaa su sooy la taq na la waaye boo boo fi doon jéem a tàggoog moom ni ki raxas ko mbaa sol yeneen yére far waxtu wi jeex ab rakk doo ko ci am su boobaa kon da nga doyloo julli googu rek doo ko dagg kon wa kazaalika ni ida zakara ndem fàttaliku na wax wate moom salaat nekk na ci biirum julli ne am na bi saw bi naka nekk na ci malaanam aw badanihi wala yaramam aw makaanihi wala bérébam najaasatan nga koy maas dafa def tun nga koy maas tan najaasatan loo ci njàng na hu mooy lisimi ànd jële najaasatan sobe nee na boo dee julli ba yàgg nga fàttaliku ne saw yaram mbaa sa yére mbaa fi nga taxaw di julli am na sobe dañuy seet bu fekkee ne waxtu yaatu na ba mën ngaa tàggoog moom amaat ca baraka kon julli googu faaw day yàqu nga dagg ko tàggoog sobe si daal ci ciy ko julliwaat ko su fekkee waxtu waxat na ba loolu xaju fa nag kon na nga wéy rek kon doo ko dagg julli nga baax na kon say boo wéy ca ba ida na ndem nekk na almakaanu béréb ba najisan di aji sobewu wa jaxale te mu def xale ci kawam saatiran aji suturaal taaxiran ji aji laab katifan ji aji tal bi mu tal la fatin ci li mu tomb ñetti tomb ay li mu ci namm faqinan aji tal jaasat kon dagan asalaatu julli xale ci moom mutlaxan ci ñëpp lay doon mutlaxan ci li man doon mooy ñëpp ko sañ daa bëgg wax ne bu fekkee béréb bi am na sobe waaye danga nga caa lal loo xam ne tal na te laab mu ne béréb bi am na sobe waaye lal nga ci ak basang mbaab der mbaa sajaada bu tal su boobaa mën ngaa jullee ci kaw nag sajaada ba mbaa der ba te du wàññi dara loolu nag moom daa am ñu koy jagleel ki tawat nga xam ne jóge foofu dem feneen yomb ko waaye ñëpp ko sañ moo tax mu naa mut la xam dafa jublu ani ah, danaa jublu lil maridi ñel aji tawat war saxiix ak aji wér xalaamaa ci kaw li nga xam ne rajaxahu lëngal na ko maanaam dëgëral na ko a ibnu yunus nee loolu nee na ki wér ki wér ko nga xam ne mën naa taxaw fii am sobe dem fu amul ak moom wér di nga xam ne taxu yomb ko ñooy moom ku doon rek béréb bu am sobe boo fa laalee boo fa boo fa lalee mu tal te laab rek mën ngaa julli ci kaw loola fas lu li beneen dog la yoon faa def na jéggale xam yasiiri dami walis aji néewi deret mut la xam ak lu deret derete ak lu mën doon mooy lu deret derete deret bokk na ci sobe yi waaye daa am luñ ci jéggale te jéggale wuñ ko ci ci des niki bu doon saw duñ ci jéggale dara bu doon xayta noonu waaye bu dee deret moom daa am loo xam ne bu na tolloo ñu may la nga julliwaale ko te du ajoo nga dindi ko lu néew la nag lu ci néew dañ ko wax léegi ah ni danaa jublu saa aw na yemoo la kaanu moo xam nekk na dama xay den di dereti mbarak aw nifaasin wala dereti wasin aw maytatin wala medd raahu moo xam gis na ko fi salaati ci biiru julli aw xaarijihaa wala ci bitti julli gi min jasadihi moo xam ci yaramam la aw xëyrihi wala lu dul yaramam moom bu la ci tuuti taqee rek jéggal nañ la ko moo xam day ci sa yaram moo xam day ci sa yére moo xam day fa ngay jullee moo xam ba nga julli nga ko gis moo xam laata ngay julli moo xam dereti mbërëg la wala dereti wasin la wala dereti med la wala addamul masfo deret ju ñu fis di nga waxoon ci gannaaw la lu ñu ci mën doon nekk jégle nañ ko wa yasiril xayxi ak aji néewu dëtti kese wa sadidi ak dëtti wàññar dëtt la taqeet waaye bariwut moo xam dëtti kese la moo xam dëttu jaaxasoog deret la ba tey daañu ko jégal ndegam bariwut wala yasiru aji néew ji maa mooy la nga xam ne duuna dirham yi nekk na di yees ab dërëm nee na liñ ne moom bu tuutee ñu jëgal la ko lu tuuti la mooy lu matulub dërëm wal muraad lañu namm bi dirham ci dërëm ba al baxliyu mooy bu bax la bax la muy barkelle maanaam boo ko gisee fasa fasa ko sut moom waaye moom itam moo sut mbaam bax la am na fi ci dëkk bi sax bu fekkee jaayuñu ko amoon na ci dëkk bi ay li mu ci namm ad daairatu kuppandal ba allati ba nga xam ne tàkkoonu dana nekk bi baati nit diraahi ci biir xasab ba minal baxli ci bax la maanaam mbax la boo demee tànku kanam ba ci biir day am ëpp ku pundal boo xam ne du sax kawar ñàkk ñàkk sax kawar te ku pundal moo tax ñu koy woowee dërëm du dërëm dëgg-dëgg daa bëgg wax ne li tax ci deret bu fekkee boo ko dee seet du du tol ne ku pundal boobee nekk ci tànku kanamu mbax la ba mbaa ca la yem képp waaye du ko ëpp waaw su boobaa daañu la ko jégal bu ko ëppee nag moom faw nga dindi ko dis la ko jégal bu fekkee dafa nekkul ci benn béréb dañuy seet ba xam ko dajale woon dana ëpp loolu am déet dikki dara taq fee dara taq fee dara taq fee dañuy seet ba xam ku sasile woon lépp benn béréb dana ëpp loolu am déet waxaan atari dummali ak walis jeexiti taab isa lam yun ko ndéem baseefu ko ay li mu ci namm lam yu sar baseefu ko nee na boo amee taab goo xam daa jékki-jékki rek di buujal boppam di génne dët mbaa muy génne deret waaye yow bësoo ko su boobaa loolu ci génn jégle nañ ko bu fekkee yaa ko bësal sa bopp nag yaa ko bënn mu bës ko nag da nga ko da la la génn ci kaw ba mu des jeexit ja jeexit ja moom boo ko raxasee day yokk bi waaye daañu la jéggal nga julliwaale la fay des ci taq it ba keroog mu wér bu wéree na nga raxas ko waaye li nga xam yaa ko bës bënn ko mu génn moom da nga ko war a dindi ba des jeexit ja bàyyi ko ci ba keroog mu wér kon léegi mooy bu dee génn tàbb lay génnul boppam lañ lay jégal waaye boo ko bësee mbaa nga bënn ko dañ la ko jégal li ma bëgg a wax léegi nag mooy bu doonee ay tàbb moom donte yaa ko bënn waaw yaa ko àkkatil dee ñu jéggal la la cay génne ndegam daale mu doon ay waxan damil baraax yi si ëwalis dereti fel ya watinil matari ak banub taw mën ngaa njëkk a taxaw ci waxan damil baraax yi si ëwalis dereti fel ya maanaam dereti fel moom lu mu bari bari jéggal nañ la ko mën nga koo julliwaale watinil matari ak banub taw wa in te fekk na mu nekk alxadiratu ay doxantu fii ci moom waaw nee na bu fekkee dafa taw boo duggee ci suuf si ban bi ñaqati wu taq la ban boobu nag jaxasoog sobe ki ban bi jaxatoog jaxasoog xayta yoo xam ne sobe la bu fekkee dañu jaxasoo ba ñoo tàggale su boobaa kon ban boobu lay taq ànd ak sobe daañu la ko jéggal du aajowoo dindi boo ko julliwaale du wàññi dara illaa an takkoona ndare bu la fa nekk an najaasatu sobe sa xaalibatan di aji not yàkkoona walay nekk laxaa ñeel sobe si xay nun jëmm xaa imatum ji aji taxaw ban bi jaxasoo ak sobe waaye sobe see ko fuuf maanaam boo xool daal xam daanaka da nga mën ne sobe la ndax suuf jaxasoo na ci waaye sobe sa ëpp su kon duñ ko jéggale faaw nga raxas ko wala ah, sobe sa dañ jëm dafa ne léegi jaxasoo gi ab sart la ci bu fekkee jaxasoo wuñ sa def jëmm jëmm ju ne léegi faaw nga dindi ko. waaw nga se nga seetlu ne kon maanaam ban bi jaxasook sobe ak sax ndox mi ci boppam dafa taw ba taa rek ndox mi ci boppam jaxasoo ak sobe ah ñooye moom lu ci nekk moom daañu la ko jéggal bu fekkee jaxasoo wuñu nag xam ne sobe ci daa beru fee wala boog sobe ci daa ëpp lool ban ba wala ndox ma ah su boobaa nag kon jéglituñ ko fas lu li beneen dog la fara idul wudu i faratay njàpp yi sabaxatun juróom-ñaar la nee na njàpp am na juróom-ñaari farata al ula bu jëkk ba an niyatu mooy yéene waxyate moom alqasdu mooy jublu bil qalbi ci xol ba fayen wi kon dana yéene bi qalbihi ci xolam inda xasli wajhihi faraxas kanamam fardal ma aw rafxal xadasi wala yëkkati toj ma aw istibaaxatamaa wala sàkkoo dagan lu la nga xam ne kaana nekkoon na alxadasu toj ma maa ni xam ni aji tere min wu ci moom moom mooy dogu ci jëf ci sa xol boo dogoo ci sa xol ci jëf rek dara yéene nga ko bu dee njàpp nag kon na ngay dem ba farata bu njëkk ci li ñuy jëf ci moom te mooy raxas kanam nga door a yéene foofa kon boo tàmbalee raxas kanam raxas bu njëkk ba mën ngaa yéene farata njàpp mi nga xam ne yàllaa ko farataal ci yow wala nga yéene yëkkati am toj toj mi nga amee woon ba teelaa mën a jëfandiku nga yéene yëkkat toj mi wala nga yéene dagan loolu liñ la aay woon lépp maanaam li nga xam ne ñu wax ne ku jàpp sañu ko yow nga yéene jàpp ba mën loolee dañuy wax ne bu fekkee ne jàppoo doo mën a julli doo mën a war kaaba wala doo mën a nangam ak nangam kon man nga booy jàpp fas yéene daganlu mooy fas yéene man yooye nga xam ne aay woon ko njër ñàkkee jàpp yett ci yooyu loo ci yéene ci yooyu mu baax boo boolee yéen yett yëpp itam mu baax ak taaniyatu ñaareel bi xaslu jamihil ci mooy raxas mbooleem kanam ngi bokk na ci faratay njàpp kanam gi nga raxas ko ba mu daj dara bañ cee manqué waxadduhu ab daytalam wala nga ne ab limitam toolan ci ab guddaay mi manaa bi ci chahari rasi mi ngi tàmbalee ci saxukaay yi kawaru bopp almota di bari buñ baaxoo ilaa axiri daqani ba ci mujjug daaju sikkim waxardan bu dee ci ab yaatuwaay maa la nga xam ne baynal ubu nay ni nekk ne diggante yaari noppee nee na kanam dañ ko am yemukaay ci bu dee guddaay bi ak bu yemukaay bu dee ci yaatuwaay bi bu dee ci guddaay bi moo tàmbalee fi sa kawar baaxoo saxee ci jë xam ne bu fekkee dangaa ngaa yiif yiif mooy sa kawar sax ñëw ba ci bët yi noonu lu tee nga raxasaale rek la bokk ca jëba ndax kawar ga fa sax teewu ko bokk ci jëbi bu fekkee da ngaa leel ba tey la saxul kawar doo ko raxasaale ndax bokkul ci jë jëbi ñàkkaa sax kawar lu ca dara bu ko defee nga ñëw na ba ci suuf sikkim bi ak saxul kawar loolu lañ ko tuddee comme dalee ci kawar baaxoo saxee ci jaww ba ci sikkim bi ci suuf loolu mooy guddaay bi yaatuwaay bi nag moo tàmbali ci nopp yi wër ba delluwaat ci nobbee lépp nag moom war a raxas faq du tamit nemmiku fii xaslihi ci raxasam asaarira jabhatihi rasrasi jëxam waxee ñoom ak takkaa miisu mooy nëbu nëbu ya maanaam mooy banku banku ya allati ya nga xam ne a ñu nekk fil jabhati ci jëba nee na bu fekkee yaa ngi raxas sa kanam te fekk nga amee ay ras-ras ci jëbi da nga koy nemmi ba nga xam ne diggante ras-ras yooyu ndox ak loxo àgg na fa wa zahira shafatayni ak bitik ñaari tuñ yi maanaam say tuñ boo ñebee ni la yàlla binde rek lii feeñ ci kaw tuñ yi war nga ko raxas ba ma ak la nga xam ne man baynal manxirayni nekk na diggante ñaari paxi bakkan yi li nga xam ne moo teqale ñaari paxi bakkan yi ba tey koo doon benn pax da koy raxas xaw daal kanam gi daal bi ci dara manqué waaye jibu dana war taxliilu shahari lixyati xaliil ka waruk sikkim ba alxafifati bay aji woyof waxas lu ma ak raxas la nga xam ne taala gudd na mina lixyati ca sikkim ba alkatifati bi aji fat nee bu fekkee sax nga kawar ci sikkim waaye dafa woyof mooy boo xoolee di seen deru yaram wa kon moom day aajoo nga yëngal ko ba ndox ma dugg ca biir bu fekkee nag moom sa sikkim dafa fat mooy boo xoolee doo séen fa kawar ga saxe kon du aajoo dugal ndox mi ba ca biir waaye cat yi nga xam ne mooy cat yi lang ak kaw gi boo ko raxasee mu doy ba doo ci awal sa loxo mu doy loolu nag bu dee ci njàpp la waaye bu dee ci sangu farata moom sikkim beeg fu kawar mën a nekk ak lu mu fatt fatt des ko war a yëngal ba ndox mu jàll ca biir ak taalisat ñetteel bi xasul yedday ni mooy raxas yaari loxo ya maxal xëy ni ànd ak yaari conce ya te waye ji bu dana war taxliilu asaabihihimaa xalil seeni baaraam itam nee na faratab ñetteel bi ci njàpp mooy raxas yaari loxo yi te dangay dem ba ëmb conc yi tuuti ndax yem ci conc yem ci képp dafa xaw a jafe mën nga dem ba ëmb ko tuuti nga bañ a fàtte itam xalil baaraam yi baaraam yi loxo yi ni ko yàlla bindee bu ne daa sori moroom ma kon diggante bu nekk moroom ma na ko raxas ne mi ko wala mooy xalil gi arrabixatu ñeenteel bi masxu jamihi rasi mooy masa mboolem bopp ba masa mboolem sa bopp bu dee ci fiq Malik farata la wa awaluhu njëlbeenam min mabda il wacc mi ngi tàmbalee ci njëlbeenu kanam wa aaxiruhu mu jëm muntahal jum jumati mooy yemukaayu ndaal bopp la bopp moom nee fi nga xam ne fi la kawar baaxoo saxi ci jë fi la bopp bi ci boo dee mosaa dana dem nag ba ca doq ga fa mu yem lépp nag boo koy masaa lépp ngay masaa waman tawadda aku jàpp tuma xalla ma topp mu lewi adafirahu ay weexam aw xalaqa wala mu wat rasahu boppam fa innahu naka moom laa yu'idu du baamu xas la mawdihi taqlimi raxas bérébub lewiku ba wala masan rasi du caageen masa bopp ba nee na soo jàppoon fekk boobu say we mi ngi ci wala sa kawar bopp mi ngi ci xam ne kon gannaaw ba nga jàppee ba nag nga wëlbatiku lewi say wala nga wat sa kawar bopp nee du tax ñu wax la ne la demal fi fi fi wey nekkoon ci loxo bi nga raxas ko mbaa demal masa masaawaat sa bopp ndax kawar gi nga masaawoon te léegi dindi nga ko déedéet ngay bàyyi noonu rek waxtu bi fa wuteef na nag ida xalaqa ndem wat na lixyatahu sikkimam baxtal wudooy ci gannaaw njàpp faqi la waxees na ne yoon yi du day baamu xas la mawdiha raxas birébam ba waxi la waxees na ne laa yoon yi du ko baamu dañoo wutee ci bu fekkee dangaa jàpp fekk sa sikkim nekk sikkim bu fat xam ne sa loxo rek nga awale nga awale woon ci kaw gannaaw ba nga jàpp sama noppi nga dem wat sikkim ba ndax dana aajowoo léegi nga raxas sikkim bi am du ko aajowoo wax ji gën a mooy dee du ko aajowoo say bu bàyyi noonu rek alxaamisatu juróomeel bi xas bu rijlee ni mooy raxas ñaari tànk ya maxal kan boy ni ànd ak ñaari dojare ya waxumaa ñoom ñaar dojare yi waxumaa ñoom ñaar xamut alxazumaani mooy ñaari yax ya annaati aani yi aji yëkkatiwu wala yi aji junni fii tarafay saaqay ni ci yaari cati yaari yeel yi a nee na raxas tànk bu ëmb dojar ja tuuti farata la ndax yem ca képp dafa jafe dojar na bu fekkee xamoo ko mooy ñaari yax yu fés yooyu nga xam ne fa nekk cati yeel bu ne am na ci ñaar waaw loolu ñu bari miin nañ ko ci seen tànk foofu la ngay raxas ba ëmb ko tuuti moo gën a wor wanu di ba soppeef na taxlilu asaabihihima xalal seeni baaraam ñoom ñaari tànk yi maanaam baaraam tànk yi ni ko yàlla bindee daa wute yooyu loxo yi baaraam tànk yi mu dafa jege moo tax diggante baaraam bu nekk moroom ma nga xalil ko nga nemmi ko ko raxas ko dañ ko sopp rek waaye agul ci nekk warugar na mu ko doon woon ca yooyu loxo ya assa di satu juróom-benneel bi addal ko mooy ragg waxu moom imraarul yadi mooy rombale loxo ba xalal xodd ci kaw cër ba maxal maay ànd ak ndox ma wala yushtarat waaye nag defu sart mu xaaranatuhu ak lëkkaloo mag li sabbi ñeel sotti ndox mi a ah, nee na farata mooy bomb ndox mi kese wala raay ko kese du doy day aajoo nga bomb ko nee na nag duñu wax ne faaw da ngay boole bomb gi raxas gi bu la neexee raxas ba yàgg nga bomb bu la neexee bomb ba yàgg nga raxas as saabixatu juróom-ñaareel bi almuwaalaatu moo di ak toftale alfawru li nga daan gis ci téere téere yi mel ni saru sixaara yooyu waaye mook almuwaalaatu bi benn lañ waxoo moom waxiya nag mu gën a yell ci baatu almuwaalaatu dee ci naxu rek waxoo moom añ yaf xala mooy mu def alwudo añ jàpp ma kullaxoo léppam fii fawrin ci gaaw waaxidin guddi genn min xëy di tafrixin ci lulu teqale mu tafaaxishin guy aji ñaaw maxa dikri ànd ak fàttaliku wal xudrati aku man neen nee na mu waalaatu mooy suusale boo xasee tàmbalee njàpp boo ko dagg di waxtaan mbaa ngay faj seen soxla waaw boo xasee tàmbalee njàpp loo noppi rek teg ci la ci waaye bu fekkee ne tàmbali ngaa njàpp gannaaw ba nga bàyyi ko fa dem di waxtaan ba mu ko si yàgg te yaa ko tey moom day yàqu bu fekkee nag li tax mu boole ci nag maxa zikri ànd ko fàttaliku mooy bu fekkee fàttee tax di da ngaa tàmbalee njàpp raxas kanam am ku ñëw di wax ak yow rek nga fàtte woon yaa ngi doon njàpp tàmbalee wax ak moom ba mu yàgg loolu moom fàtte gee tax du ko tee baax na ngay jàll rek te itam nga mën ko nga mën ko nag ñaar la bu fekkee wutoon nga ndox moo xam ne doyoon sëkk yàlla moo def rek moom ngay jàppe yàgg ma tóoru ci coobareem kooku moom lay nga mën a sësale yàlla ndax yow wutul ndox moo xam ne doy na kon gannaaw ba di jur nga wutiwaat ndox nga ñëwaat kooku moom bu yàggee itam la ngay jàll rek la nga defoon baax na mu des na bu fekkee dangaa wutoon ndox di nattable dana matam du mat wala nga wut loo xam ne duut ba nga ñëwee nag far dem ba yàgg mu far jeex te njàpp mi àggut waaw ah, kooku moom kon bu xasee yàgg rek diggante bi bu yàgg rek nga war a tàmbaliwaat njàpp mi bu yàggul nag nga mën a sosale waaye bu yàggee rek wa sunanuhu ay sunaam samaaniyatu juróom-ñett la maanaam njàpp na juróom-ñetti sunna al ula bu jëkk ba